ñu dañu am nag di sàmm euh, tey jii ci ci suba si suñu sàmm xëy dem di sàmmi romb ci benn tool boo xam ne yàgg na di fa jaar tool bi nag amul ay ñàkk amul miir amul dara la ko protégé léegi mu romb na ak nag yi yàgg na fa romb am lu mu dégg benn téel téel bi nag nekk benn fetal fetal gi nag dal ko ci li tolloo ak fii ak ci boppam nii ak ci euh, mbaggam yëpp. ay bale plomb yoo xam ne dal ko mu daanu léegi bi mu daanoo nag am ku ko euh, tiire bal nag bi mu bi mu tiit nag nag yi nag yi tiit nag yi daw moom mu jóg bi mu jógee ak tàngooram ak yaram yaram noonu nag daw na euh, pour dabu nag yi waa ji yaakaar dafay daw mu daw dabu ko ci bi mu koy dabu nag woote na téléphone woo am ku muy waxal téléphone daane ko ñëwal indi euh, oto bi ak nu mu gën a gaawee ñëw indi oto bi nu mu gën a gaawee mais xamul na kan lay waxal ci loolu nag aussi moom am na mag bu mu dajeel ni ko nag gis na diw li ma def. ni ko gis nga kii li ma def mais xamul turam sax xam gis nga kii li ko lii jaaduwul kooku nag bi mu gisee nag ak ki ko bi mu gisee deret ji nag ni mu mel noonu nag ci la mu daw léegi moom nag mu euh, rungu nag yi indilewaat leen kër yaa xam leen ci kër gi bi mu ñu laaj ko lu xew dañ ma tiré bal yóbbu ko dispensaire dispensaire def constat mes euh, ICP bi gis ni kat lii jaaduwul mu woote gendarmerie gendarmerie ñëw ànd moom ñu ànd ak ay mbokkam delluwaat ca fa mbir mu amee mais fi mbir mi amee mën nañu wax ni matul sa cinq minutes pour waaj booy bi duggaat ci tool bi mu nekkoon te wax nañu tool bi moomu ko dañ ko dénkoon tool bu mu xool mu xool ki ko moom euh, nekk fa fekkewul fekkewul mbir mi mais bi mu ko tiiree bu nit ñi wax di topp ay tànk nag wër na lu xaw a dem kilomètre pour wër-wërlu nit ñi pour bu ñëwee pour mën a xas tànk bi gendarmerie ñu ñëw na def na constat bi wër nañ ba dugg ci tool bi nga xam ne fa lañ xam yaakaar ni ki ko tiiree fa la nekk bi mu ñëwee laaj nañu nag amul kenn ku nangu jël responsabilité bi daal ni man maa tiiree bal bi waaye nag gendarmerie ci diggante bi ki ñu wax ni moom moom tool bi wax na ni moom jàpp na benn nag dem na déclaré ko gendarmerie ñun suñu xale bi ñu xoolee gis ni kan manqué lañ benn nag ñu dem signalé waat gendarmerie manqué lañ benn nag ñu ne am na ko fi ñëwoon déclaré ko nag ni ko pour mu ñëw wuy si gendarmerie gendarmerie mu ni mënul ñëw na suba nag suba ci bi dinañ dem wuy si gendarmerie nañu delloo kenn ko li wàllam li moom ñi sàmm xam fi ñu war a jaar jaar fo waaye borom tool tamit bu bu yoree toolam na ko protégé na ko ñag ba xam ne bëggul lu mu bëggul mu jaar fa bañ faa jaar actuellement mi ngi fii ci urgence def na rajo ba pare léegi nii ñi nga xaar na pour euh, médecin yi ba xool ndax nañ mën a génne problème yi nekk ci yaram bi mais mi ngi urgence mën na wax nag euh, nekkul gravité bu grave noonu li ñu bëgg mooy ñu xam ni euh, nit dañ ko war a jox war ma xabu garab yooyu mosu cee dugg parce que ñun liñ ko xamee ba mu ñëwee ci kër gi léegi léegi mu def atu yàlla ci kër gi kenn mosu koo xamee xaari ma yàlla te bu fi fekkoon dafa dagg mango sa mbaa dagg sa ak xobu mango sa loolu warul mën tax nit tiire bal ci kaw nit nit moo gën seer mango même fekkan loolu am dafa am sax na jàpp mu alerté woote ñu te ko ci yoon mais tooñu ko defu ko mu ñëw tiir ko bal loolu kenn mënu xam nu muy tekki boo ñëwee ba Kër Moussa da ngay jàdd dem kër yaa xam boo jegee kër yaa xam man ni ko dem diggante kër yaa xam ak kër Matar foofu la àll pënguur nekk